man doon naa ñaata yoon champion d'Afrique def naa ñetti Jeux olympiques 1972 Montréal 76 Moscou 80 doon naa champion d'Afrique en Algérie doon ko ñaari yoon Égypte doon ko benn yoon Maroc def ay jeux yoo xam ni en Yougoslavie en Bulgarie en Roumanie donc kon yaakaar naa ni bari na fu ma taxawal réew mi ñu yëkkati drapeau Sénégal tëgg hymne national kon tey je suis très fier ma taxaw fii ngeen laaj ma ci bijou bi nga xam ni moom la yàlla dogal ñu defal ñu ko ak di leen ñaanal yéen itam ndax yéen fu suñuy wax a nekk ak fu man di dem yéen ko fay àggale kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw xam nga li ñuy wax courage ci jëmale sa kanam dafay dëll parce que tey li wóor te leer mooy euh, combat boobu ñun ñëpp dañu man ko mobiliser pour bëre am ndam yàlla nag mooy dogal ndax xam nga on ne va pas en guerre et donner ses armes dama yaakaar ne la ñuy wax ak la ñu war a jëflante ak moom bu ñu demee ba ca digg ba danañ ci mën a waxtaan ak bu soobee yàlla waa non xam nga kooku ci waxin la ndax dégg-dégg ba boo ko déggul ndax tey bu ñu sajoon ñun dañoo téye woon Pikine euh, xale yëpp bokk ko ñoom ñëpp ñu nekk ci moom itam mu bokk ci ñu ñu bokk leen téye ñoom ñëpp kon yaakaar naa ni ñun bu fekkee ni bi dañoo suñu wàll dafa ci xaw a wéy moom mu nekk fi yàlla dogal mu am fi lu kenn amul def fi lu kenn deful li wóor leer mooy moom itam dafa waroon na téye ay xaleem malgré coow yi ndax dans l'impossibilité on peut toujours trouver la possibilité ci waxi ni ma ko waxee ak ni ko gars yi déggee man dama wax ni dafa war a dajalewaat xale yëpp boole leen jiital leen ñoom ñëpp ñu topp ci ginnaawam noonu laa ko parce que noonu laa ko defaloon mu topp ci waaye nag xam nga wax moom bu xasee ba jóg ku ne day jël sa wàll daal di xëcc sànni waaye li ma doon Euh, Tyson mënu ko dindi moroomam munu ko dindi Tyson li mu doon kenn mënu ko dindi ndax doon roi des si le premier roi des arènes Issa Pikine may doon naa fi premier champion set du Sénégal doon naa fi itam premier champion d'Afrique fii ci biir Pikine kon defe naa ne yaakaar naa dama leen a téyel yëf yi ba ñu ñëw kon bu ma na ko téyelee ba ñu ñëw ñoom itam war nañu ko téye ba seeni set sët wala seen i sëtaat ñëw déet kon jeex na ah kontaan naa trop puso bi kenn waru ko mujjee mu réer say loxo noonu laa ko waxe ah waaye nag nit ku nekk ak sa déggin ak sa waxin ndax yàqalu nu dara bu nu yàqaloon dara kon du nu ak si fii te ànd nañoo moom ci ngoor ànd ak moom ci taraanga yóbbu ko ci làmb génn su joxe mu def fexe ba mu doon champion kon ñun itam mënuñu lu lul di ko sant di ko gërëm ndax dara mënul yàqu. je vous remercie. <laughs> dëgg la waaw ñun lu moom benn nekk lu ñuy ñaan yàlla mooy ànd booloo Pikine gunge gunge Eumeu Sène mu daan Bombardier loolu nag Pikine gépp nañu ànd nekk benn bopp Pikine gépp nañu ànd nekk benn nekk benn bopp ki nga xam ne mooy njiitu mooy Papa Diop ñun ay rakam ñu topp si ginnaawam jàppale Eumeu Sène te ñu ngi si liggéey sax liggéey si mu ñëw fii daan Bombardier si kattanu yàlla yonti bi si barke Abdou Khadir Dieng. kon dana leer ni combat bi fii lay waaw mën na am fii mais boo amul fii lay gën a neex. Hmm. waaw mais boo amee feneen tamit moo ñu gën mbaax la na nekk na nekk Sénégal rek fii moo ñu gën a waaw waaye fii ak fii ak <laughs>